bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. kaddu gi eh, Diado fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu eh, duppee Cheikh Imam si se dale nag jàmm ci eh, xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci ab grève bu dul dakk nag la ñu fas yéene rek sumb ni ki suba ci ba ji ñoom ñi nga xamee ne ñoo di jaaykatu jën ak liggéeykat yi aju ci marché géej bu Kaolack bi nee nañu nag bu weesoo jafe-jafe yu takku yee ñuy jànkonteel njaayum jën mi nga xamee ne fu neex waaye mu daal di koy defee la ñu bëgg nag mu dakk ci nii mbaa ci naa ci biir xibaar yi ay mouvement de soutien ak i plateforme yu bare bari euh, jamono ji nag jóg nañu rek takku taxaw tem ngir itam daal di jàppal tànk waa collectif bi di aar Kaolack lu ni mel nag mu soxal rek mbiram boulevard de la liberté bi euh, Pape Simaxa njiital plateforme nay leer ne la ñu bëgg nag jamono ji mooy ñu dakkal liggéey foofee lu ko may itam daañu amal ab doxub ñaxtu yëngu yëngal jógee ci société civile bi wala ci métier journalisme daal di tàbbi ci làng politique bi euh, doon na jamono ji bi ñu nemmeeku fii ci réewam Sénégal bu ñenn ñi jàppee ne àndul ña des itam la ñu wax mooy ne lu mën a nekk la la ca am solo rek mooy bañ a nax askan wi lu ni mel njàngat lu yaato yaatu lay doon ak Cheikh Babacar Dieng reportage bés bi nag tey jii mi ngi rek ci waajtaayu korite gi daañu dem nag seet ji ñi nga xamee ne ñoo di suñu a mbokk tailleur yi fa ñu toll ci wàllu wàllum ñaw yi ndax ma ngay dox waaw wala déet loolee itam daaj ca ànd ak Lune Badara Diop bu li bokk yi daaj ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram yóbbalu koor ji ak oustaz Sow buñ ca noppee nag toftal ca kooru gay ak Bara Diop jeexale ko li ci yéenekaay yi dal leen ci xibaar yi. Le journal Ngoné Ndiaye ci euh, kaddu gi euh, fego ceek Codou Seck madame euh, Keneme ci wàllum xarale gi dañu koy doore nag ak na ma leen ko junjee gannaaw nag tekk-tekkaaralu kilifa yi ci ay jafe-jafe yu taw am saafara ñoom ñi nga xamee ne nag ñoo ñooy daane seen ko doole ca marché au poisson bu Kaolack bi sumb nañu nag jamono ji ab grève bu dul dakk ni ki ëllëg nag nee nañu moom njaayum jën du am rek fii ci diwaan bi te it duñu faslante xànc ak morom mi Cheikh Tidiane Diagne ay liggéeykat jaayu jën bi nekk ci biir commune bu ka marché poisson mercredi kenn du fi jaay jën kenn oto yi d'accord nañoo duñ ubbi nit ñiy jaay ci taabal yi ubbi amul benn dig digal buy yeewoo fii ci marché nga def ko sa bopp yaakaar di nga jaay jën ñu la fay seetaan dañu koy tëj borom oto yi dañuy tëj ñu tëj marché bi fas yéene jàmmaarloog ñi nekk ci 30 mètres ak marché bi di fiy jaay jën ñu wax ko maire faju ko ñu wax ko gouverneur faju ko ñu wax ko préfet faju ko comme que foofu lañ taxaw pour xeex ak ñun ñu fekk si leen fa amul app xamul tax amul app Sénégal daf ñoo tàmmal lenn boo defee benn fan ñu ne ah ñoom ñëpp a koy yëg nga def ñaari fan ñu ne ah ñun ñëpp a koy yëg ñu def troisième mais yaakaar naa lu amul app moom ñun nañ ci dem ak ñoom ñun du grève dong la def grève la def ak tëj beneen bi ci mooy danañ marche bépp jaaykatu jën buy yeewoo fii wala ñu xam la ba Saalum Kaffrine marché bi Kaolack ñu yàgg koo wax waaye dara saafarawu ci Alaaji Góora Sàmbu kenn la ci ndaw ñuy liggéeyee ci marché o poisson bu Kaolack. ku ne xam na ne jën ni mu mel ak ni mu sakkare nga jël jën wi di ko lal ci suuf ak di jël jën wi bon wi di ko génne nit ñi di ko ndugg di am ay jafe-jafe boobu ba léegi ñu koy xeex muy ay jafe-jafe munta saafarawu te ñu koy def ay booy yu ndaw lan yoo xam ne ñu koy def ñu nekk fee xay ga ñun ñu nekk ci marché bi marché bi tey yaakaar boo xoolee arrêté maire yi mu def marché yi la autorisé ñu jaay fa jën bu ndaw yi leen autorisé ci Kaolack kaolax léegi dem nañ ba biir néeg sax dañ fay jaay jën fépp la jaay jën léegi leneen lu leen métti bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne marché bi mu ngi koy jànkuwanteel mu jëm ci tali yu bon ak équipe bi nekk ci direction bi ñu ne matuñu yàpp matuñu jën waaye tamit liggéeyuñu dara boobu ba léegi tekk tekkaaral googe nga xamante ni autorités yi fekk baax fii ci diwaanu Kaolack def nañu ko jaaykatu jën yi tamit naqarlu nañu ko tàggootuñ kenn la ñu tàggootu ñun li ñu doon def mooy acte de citoyen wax ak autorités yëgal leen comme que yéene suñu kilifa bu nekk Kaolack bu a taxaw ne aatu fëggul sa bureau wax la ne la régler jafe-jafe marché bi ñun nag suñu autorité leen la ñu tàmmal Sénégal président laa koy jiite ba ci suuf foo nga daanu wala nga xeex ba am li nga bëgg grève bi nga xamante ne nag dinañ ko tàmbali ëllëg ci àllarba ji ñi nga xamante ne ñooy liggéeyee ci marché au poisson bu kaw Kaolack nee nañu tamit dinañ ci waxtaan ak seen mbokk yi nekk ci biir Saloum di joxe jën ci yenn dëkk-dëkkaat yi mu nekk loo xamante ne nag amut ab mi ngi noonu ak xew bu amul app nag la ñu nar a sumb rek Cheikh Tidiane Diagne ndaxte nee nañu nag fëgg nañu rek buntu kilifa yi ba tàyyi yi amuñu saafara nee nañu tànkam lu bi ak càggante bi doy na yàgg na Malick Diaw di kenn ca jaaykatu jën ya adduna ci ak Cheikh Tidiane Diagne. marché bi li nga wax noonu maanaam marché bi jafe-jafe yi mu am nekkul ne mën na téeméeri jafe-jafe wax nañ ne marché bi amul glace marché bi amul sécurité marché bi kenn faalewuñu ñu commencé ko ci état ndax marché boo xam ne bii bi Souleymane Ndéné Ndiaye di nekk premier ministre la fi yónni benn délégation ñëw def audit ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu direction bi comme audit jàpp na la yaakaaroon boobu la lépp di réglé ba si ci ay jafe-jafe la ñuy wéy am na ñaari at yoo xam ne suñu chambre foire bi amul glace te marché bi sàpp na bi ñu ko tabaxee ba pare ñu ngi ko tabax ci 4 milliards 500 millions jox ñu kayit yi mais suñu directeur bi nekk fii moom daf ne amul droit jàpp benn nit ñu dem ci maire sottiwut ñu dem ci gouverneur sottiwut ñu dem ci préfet sottiwut maire bii fi nekk di sëriñ bu toog na fi ñu jox ko convention bi nga xam ne bii li ñu naqari ci marché bi yëpp mu téye ko mais li ñu teg ci suñu loxo doyuñu mooy daf ne mi ngi seet mi ngi seet la wax ay maang nag boo toogee ñu wax la seen jàng ñu nga ne maa ngi seet mooy ne loolu doyuñu ñaareel bi bi muy campagne toog na fii ne bu ma gañee Kaolack waxuma maa leen di jox directeur yéenay tànn ku leen neex mu jiiteel leen seen marché la waxoon keroog bi mu gañee Kaolack ñëwal na fii boppam seet si ñu bi ñu ko waxee suñuy jafe-jafe ak liñ ko doon xaar ci pour ñu jële fi directeur bi daf na nañ ñam toog waxtaan samedi ba ñu koy wax ci biir barax la weloo ñoo ngi ci biir weeru koor kon samedi bi rek dèjà li mu waxoon defu ko kon ñun xaaratuñ maire xaaratuñ kenn léegi li ñuy def mooy jógal suñu bopp mooy àllarba ak danañ génn danañ tëj marché bi taxaw Kaolack kenn du fi jaay jën ku ko denc ku ko jëlee feneen ak foo mën a nekk doo ko jaay ñaareel bi mooy loolu ñu wax noonu amul fenn fuñ ko emal fii li ñuy dox fajuwul ndax valeur bu toll nii marché boo xam nañ ko tabax ci milliards millions mu diire depuis ba léegi sii sambur fort bi paan ñu ne ay millions moo koy defar mënuñ koo def ñi fi nekk di jooy ay salaire glace a ngi nii amut kees gën di jar nga jënd yooyule mbir grève boobee nag ñu bëgg a amal ñoom jaaykat ya nee nañu nag dara leen ca neexul waaye dafa fekk ne amuñu pexe te it dañoo gis ne mbiram xay ga bu ñu ca taxawul mën nay jur leneen Atou a njiital mareyeur ya foofee àdduna ci ak Cheikh Tidiane Diagne. man détaillants yaayu ñoo ma fi teg ah. man Atou détaillants ma fi teg fi ñu bëgg ma xool xam ne war naa faa xool dama fay xool xooluma keneen nag ñoom laay la détaillant moo tax bu détaillant amutoon duñu wax marché débàccadeur rek la wax dañuy wax débàccadeur mais lim am ay détaillant tax tax ñu ne marché central au poisson de Kaolack te dafa am ay marché yoo xam ne dañ leen a lim ne yii ñoo war a jaay jën yu ci bokkul bokkuñ ci waru ñoo jaay jën xay ga amul en aucun xay ga amul benn prérogative bu war a jaay jën benn il n'est amul hygiène amul qualité amul propriété te jën dafa sensible te defuñ ko pour ñu jaay fa jën beneen bi ci des ombale ko wuñ ko pour mu jaay jën au contraire dafa am décret buy tere ñu jaay fa jën kon yow xore leen defuñ ko pour añaan mais état moo ñu seetaan ci liñ bokk ñun ñëpp ñu ak waa Kaolack gi ñu ngi leen koy jégalu bu baax nag ndax or ba ngoon jot nga war a ndogu gisoo jën yoo ndogoo métti na ak ni yàpp seere mais ñu di leen ñaan ñu ànd ak ñun ci naqat wi ñu nekkee ba régler ko ba seen jën mën di yomb seen jën di mën baax seen jën di ñu di ko jaay fu sell loolu lañ ci jublu kon ñu ngi jégalu askan wi bu baax waaye nag xeex bii ñu leen di ñaan ñoom itam ñu dugal à condition su nekkee ne dañoo ñëw ñu toog ak waxtaan pour ñu jële fi xay gi xam ne xay gi war nañ faa jaay jën xam ne marché bi am na ay problème dañoo war a régler si problème yi là on est pour ndax ñun loolu rek la ñu wër parti nag loolu la wër bu fekkee leneen nag am na ci la ñu daan naxee ñu bëgg ñu ko continuer di naxee on dit ñett et on continue autorité Kaolack a bëri war a war a jox cër waa Kaolack marché bi mooy suñ gagne-pain mooy gagne-pain Kaolack waa la di ci ñun ci autorité Kaolack yi la ñeneen ñoo xamee ni itam ni ña ngay joxoñ rek baaraam itam autorité Kaolack yi mooy nag ay kuréel ki am mbootaay yoo xamee ne ña ngay jàppal tànk waa collectif bi di aar Kaolack lu ni mel nag ci lu soxal rek mbiram boulevard de la liberté bi nee nañu nag la ñu bëgg rek mooy ñu dakkal liggéey foofee ca na mu gën a gaawee ndaxte lu ko moy itam nag ci ay bés yi ñu jëm daañu yëngu-yëngal amal ab doxub ñaxtu ci ni mbaa ci naa Pape Simaxa ma ngay artu mu ngi ci micro bi ay lii nag dafa nekkoon déclaration bu ñuy def par rapport ak li nga xam ne moom ngeen seen nii mooy bâtiment bu anormal bi nga xam ne tey wax nañ lii tey dafa nekk loo xam ne moomeelu waa Kaolack la moomeelu jeunesse bi yëpp la parce que fii lañ tuddee boulevard la liberté fii espace vert mooy fi waroon nekk ñu defar ko embalir ko ba nga xam ne tey képp ku sonn wala képp kuy doxantu mun nga ñëw tey fii nga feexlu fi deux voies liberté six mais malheureusement ñun ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñu jiitee buggaluñ Kaolack lu baax buggaluñ jeunesse bi lu baax lu leen tax a jóg mooy seen mbiru bopp lii utilité publique la ñu daal di ko fekk bi kon duñ nga xam ne tey moom moo signé lii kooku dañ ko war a pour haute trahison à la population kaolackoise le gouverneur parce que collectif bi grand yi nee ñoom bindi nañ ñëpp na leen mais moom nangu leen recevoir fan lañ ko teg président Macky na wax ci lii wala deret du ci tuuru parce que nag lu mu leen jaral ñoom bañ samp ko di ko def dinañu jaral lu ko raw pour ñu dindi parce que nag ku xamul buur saay ci mbir mi ñun dinañ leen topp demander à ce dagg seen bopp à ñu wàccee leen parce lu ñu def nii njuuj njaaj mënul weesu lii lu ñëpp moom nga jël ko jox ko benn nit parce lan parce que am na lu lalu si suuf lan moo lalu si suuf boroom xel yi xam nañ ko kon nag tey dafa jot ñu xam ne lii muy jëg di indi ay buntu di raax ak di def benn affaire ñun taxaw nañ dès la semaine prochaine suñ gàntalee suñ doxu ñaxtu bi dinañ wàcc ci tali bi kenn du dem kenn du dikk na mais Ndingler njiital plateforme Nayleer waa collectif na fi jógee itam nee nañu nag jamono ji attakkaayu nañu rek ba dëgër itam ca xeex ba nee nañu nag bu kilifa yi gaawul axtu daañu àgg foo xamee ne itam ne du leen neex ndaxte ñoom ñooñee nag du ñu seetaan itam ñuy àggale la nga xamee ne moo di chantier ba seen i kàddu noa bi yaay moo ko tàttaan Pape Seck tey ji dañoo toog doon doomu Kaasnak doon doomu Kaolack juddoo fi yoroo fi nii newoon ancien gaz Dakar ñu fiy fooye fi defee lu nekk ñu jox benn doomu aadama boo xam ne doomu Kaolack waroon nañ ci di ciy foye am ci ay espace vert am ci ay jardin public yooyu waroon nañ ko fee mën a def def ko ay terrain de football maanaam tey ji gox suñ koy tabax doomu ndax tey moo jiite bépp doomu aadama ne ko nag chantier bi nañ ko arrêté ndax su ko arrêté su àdduwul dina àtte ndax tey ji duñ seetaan chantier bi di dem Cheikh Seck euh, bokk ci collectif na fi jógee membre ci plateforme nay leer Sénégal li nga xam ne lu anormal fi woon nekk ñu def ko fi def nañ ko fi par complicité suñu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ngi jëlaat suñu moomeelu bopp fi nga xamante ne tey ministre Diène Farba Sarr moo fi taxawoon tuddee ko boulevard de la liberté loolu noonu état ne lii dama ko jagleel sama askan léegi naka lañ ko mën a jékki-jékki jëlee ñu naan am na ay këyit ki wane këyit yi sax complice la ne man du ma xool tur damay signé damay bind moom sax complice la parce que suba ñoo ngi xaar njugub taal ñoo am fi kër gannaaw suba ñoo ngi xaar Paate Njaay ñoo am fi bu mu bett kenn mooy Matar Njaay war na fee mun ñëw dagg te bu jàllee te arrêté wuñ ko ku nekk war na fee mun ñëw dagg taxaw tabax lu ñuy wax mooy nu mu gën a gaawee nañ arrêté les travaux et fu ñu mun ñu jëm mooy du yàgg dara li ñu war a def dinañ ko def dinañ jaar fi ñu war a jaar et buñ ñu ko gàntalee dinañ def li nga xamante ne moom la ñuy def mooy ku ñu buux ba ci miir ñu fippu te bu ñu fippoon nañ baaxee la route et oto dootul jàllati dootul demati tànk dindiwuñ fi lii nii. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu daal di euh, wéy euh, ba tey nag ci euh, jukkim xabaar yi ci kàllaamay ko gannaaw nag ñaari weer ba ñu jotee rek ci li nga xamee ne moo di mairie bu Kaolack bi équipe municipale bu yees bi nag amal nañu rek ab ndaje doon ca xayma nag liggéey ba waaye tamit nag daal di fësal programme yi nga xamee ne moom la ñu dëgmal ci wàllum moderniser dëkk bi lu ko taaral ak it nag lu ko leeral moom Mbaye Ngom mi nga xamee ne moom la ñu dénk wàllum technique andi na ci ay leeral ci micro Cheikh Tidiane Diagne. suñu nañu entrée Kaolack bu nekk ñu def benn monument kuy egsi xam ni ko Baye Niass yi ñu tuddee ko sëñ Basiru ak yeneen kilifa diine yu nekk ci dëkk bi gis ngeen tali yu mel nii moo am moo am Renéeru moo am fépp te ñun fii Kaolack amuñu ko ñu ngi ciy liggéey ak waa Ageroute di ci liggéey ak waa Promoville ñu def ay tali yoo xamante ne tali nii lay mel te ñu ngi ci ay signature de protocole ngeen xoolaat tamit ci suuf suñu centre ville actuellement nii la mel à taxi yi parce que c'est pas organisé budgétiser mais à droite suñu projet nii la bëgg def fii ak ay weer centre ville u Kaolack nii la ñu bëgg mu mel te commencé nañ ci ak ay partenaires signé nañ protocole yi travaux yaa ngi en cours ñu am un projet de pavage su ngeen xoolee ñu ngi pavé soo jugee cœur de ville jaar gendarmerie bi jëm camp militaire ñu ngi koy pavé lycée technique ñaari tali ñu ngi koy pavé actuellement am nañ un projet de pavage de trente mètres carrés diggante mairie bi jëm ba passoire mooy première bande bu gudd bu verte jugee DHS bi jëm ba rond na mooy deuxième bande bi fii ci semaine bii di ngeen gis ñu commencé travaux yi incha allah de pavage bëgg nañu buntu kër ku nekk suñu fi yàlla bàyyi ci suñu programme ku nekk sa buntu kër dañ koy pavé ba dootuñu gis suuf ci buntu kër yi. da ngeen di gis camions yi dañuy taxaw fu nekk am ay oto yoo xam ne ñu ngi fi ay ati at garé dañu am benn équipe bu ñu mettre en place bu tudd SDA def nañ enquête ci quatre routes nationales yi bi ñu defee enquête ci deux semaines ñu gis ni am na yoo xam ne légal nañu mooy maanaam ñoom am nañ këyit ci mairie bi ba am occupation mais 728 ñi nga xam ne dañu installé ci tali bi dañu installé de façon irrégulière dañ ñëw rek installé wu noonu te mairie bi xamu ci dara ñun nag commencé nañ ko très bientôt dañuy mettre en place ay kiosque ñu ngi commencé bu fa def 3000 mètres carrés boo xam ne ce sera lu ñuy woowe quartier du cœur suñu defaraatee tali yi di ngeen gis service domanial dañ ciy boole ay parking parking yoo ne oto buy ñëw di gaare du gaare n'importe où mais bu boobaa day def une participation financière pour aussi ñu relever recette euh, commune de Kaolack dañuy euh, des ba tey nag ca googule euh, ndaje leneen itam loo xamee ne bokk na ci seen ay projet mooy nag lu soxal wàllu paj meek paju mi wàllu assainissement bu marché central bu Kaolack bi waaye itam nag wàllu ma njënd meek njaay mi lu ko gën a ñoŋal fii ci euh, diwaan bi Mbaye Ngom Bete ak Cheikh Tidiane Diagne. bi nag mooy les gros projets du maire Serigne Mboup les cœurs du quartier Serigne Mboup lu mu bëgg mooy koñ bu nekk ci Kaolack mu def fa benn mini marché boo xamante ne day doon ay kiosque loolu avantage bi mooy ëllëg nit ñi à chaque fois am na yu bëri sa koy mën a jënd boole nañ ci ak moto jakarta yi defaree arrêt jakarta yoo xamante day am restauration à côté am réseau wifi mu doon un centre économique de telle sorte que ñëpp dinañ ci gis seen bopp deg ci aussi boutique pour les marchés de produits locaux koñ bu nekk dina am boutique boo xamante ni li ñuy bëy ci Kaolack moom lañ fay jaay lii tamit ay projet la yu nekk en cours ñu ngi tabax ay poste de santé Ngane ñu ngi fay tabax poste de santé Darou Salaam ñu ngi fay tabax poste Namba Ba ak Sing Sing force de santé les travaux sont en cours lii mooy hôtel de ville bi mairie bi ñu nekk di tabaxaat lii nag projet la boo xamante ni ça me tient à muy canalisation assainissement du marché central de Kaolack am na lu toll deux mille cinq cent mètres linéaires yoo xam ne ci biir marché bi dafa bouché yi ñu teg ci ay cantine yi ay suuf moo ci nekk barki démb ak benn GIE bu ñu naan déwoo ñi nga xam ne seen table yi dañ ko teg ci kaw canal yi ñoom it ñu jàppale ñu lii mooy la gis ngeen canaalu Kaolack bi ñu fi ñëwee nii lañ ko fekk te commencé nañu assainissement bi ak ONAS def nañ ci un projet boo xamante ni c'est douze milliards sept cent doo xam ne état du Sénégal moo ko ci def les travaux sont en cours loolu ci quatre mille deux cent yi ngeen xamante ni canal yi ngeen gis jóge xaaxul ñëw ba ñaari tali beneen bi jaar ñaari tali dem na Mbaba moo nekk nii am nañu signature ak waa Ageroute vingt mètres yi ma mel en rouge dinañ ko dagg ci fan yi ñuy ñëw def la connexion ba nga xam ne problème inondation Kaolack yàlla dinañ ci suturaal année bu nekk waa ONAS ñoo ko wax dinañ pomper plus de 4000 mètres cubes ndox sànni ko waat ci biir géej te soo doxee à 700 mètres maanaam moins de 1 kilomètre am nañ sa toolu ngaan yi nga xam ne soxla ñu ndox pour béy ci suñu salade yi suñu tomate yi bu boobaa étudier nañ benn projet boo xam ne dañuy jëlee ndox bi fii xaaxut yóbbu ko ci toolu ngaan yi loolu mooy le plus grand projet du maire Serigne Mboup. yéen a ngi xibaar yi ci Alfayda FM. 90 point 1 yegg si euh, nañu nag ci euh, njàngatu euh, bés bi lii itam nag junjoon naa leen ko ndax bëgg nguuru la wa ilaay tamit nag bëgg a xeexal sa askan la lu mu ci mënti doon nag mooy ne li ñu seetlu rek jamono jii mooy ne lim bu takkoo takku ci ay taskatu ak xibaar ak ñoo xamee ne ñu ngi aju ci société civile bi dañoo jóg nag daal di samp seen ndënd rek mu soxal itam élection législative yi nga xamee ne moom la ñu dëgmal mbir mu ni mel nag jamono ji jur na ay wutee ak i xalaat yu baree bari ba tax na ñu def ci taxaw seetlu Cheikh Ababacar Dieng. jamono jëlee li ñuy waxtaanee ci mbedd yi mooy ñu ñu duppee ay chroniqueur di journaliste nañu doon wax ay activiste faroon ci askan wi maanaam daal société civile bi mooy fàq di wutale langue politique yi Fadel Barro mi fi jiite woon Y'en a ci ay jamono te tey muy politique jàpp na ne loolu dugguleeg ci àdduna bi. Macron mi ngi gis tey di président France nekkutoon ci benn parti politique ak faneen ak faneen États-Unis gis nañ ko fa dëkk yu bari yu tey jii demee benn bi ka koy diriger Patrice ci politique ci langue société civile bi la jugee te nan lu bees te loo xam ne la lu baax la du loo xam ne da nga koy xarab ñi nga xam ne nag ñoom dañuy yëngu ci politique te ñaare daan contre loo doxilinu ñenn ci activistes yi dañoo jàpp ne leen dugal ci politique wuti nguur ak dund gu gën a ñoŋ rek la Déthié Ndao mooy coordinateur mouvement Kaolack ca kanam dëkkee ci Saloum député Sénégal moo neex am na xaalis maanaam koppar ak carburant oto am passeport diplomate ba pay ñu ngi wax ne sa jabar sa day am passeport que ko jotaat nañ wàññi mag wala amatoo sa doom wala sa jabar wala yenn carburant yeeg yenn moyens yi ngeen am na ñoo xam ne naa ne ana ñu ana seen taxawaay wu ñu doon taxaw amatut gisatuñ leen kan ngay gis Guy nekk ci société civile di xaxal askan mbaa di ko waxal ba jëmi jamono nga mujj daanu ci làng politique gi Fadel Barro ne mun naa nekk de nit ki na fexe ba li mu doon wuyo mu koy nuru it ci biir politique bi bu mu soppeeku li bon mooy nga jógee société civile ñëw ci làng politique gi ba pare di doxalee li yées ni politiciens yi daan doxalee maanaam sa waxu démb ak say jëfu tey di oro digee boo digee doo ko def comme ni ko sëriñ bu bi defee fii ci Kaolack loolu moom lu jara muslu la Djibril Fall Aliou Sané ñuy ñëpp nag ne dañoo bëgg a nekk député ci assemblée nationale bu bees bi war a ñëw ci njeextalu weeru sulet ci at mi ñu nekk. Jokko Ndiall Cheikh Babacar Dieng dañuy des ba tey nag ca googu leen mbir Fadel Baro ne lu ni mel daal la ca dugal ñenn ñi mooy ne nag balaa nga naan naam ne fa te dëkk bi waruñu koo bàyyeek politiciens yi ba tax na nag mu ne lu ni mel lu baax la li am ba des rek mooy dëggu bi ak gis-gis bi bañ a wuteek doxalinu ay kàddoom ak Cheikh ñëw ci politique dafay wane ni rek lii olof njaay naan yóbbante galgal tojul làmb bu dee da nekk ci el bi di jàmbat di ñaxtu di kaas ndax avantage ñu jóge société civile mooy xam nañ loi bi xam nañ yoon te am nañ gis-gis ci ni réew mi doon doxee moo tax ñu doo ko doon jàmbat ak a ñaxtu mais bu ñu nee ba ci biir gis ne politiciens yi dañuy wax ba sonn ñu kon ne di def li ñuy def su boobaa nag day baax ci réew mi ñu ñëwal seen bopp jéem ci góorgóorlu dëkk mënuñ ko bàyyee politiciens yi kese bàyyee dëkk doxalin bi politiciens yi kese moo ñu indil jafe-jafe yi ñu nekk ni tey mais tey jii par exemple ci kaw la comme man ni élection municipale yi jàngalekatu daara yi nga dajale leen société civile lañ bokk commerçant yi nga dajale leen société civile lañ bokk jàngalekat yi nga dajale leen société civile lañ bokk ñoom ñëpp ñu indi seen xalaat ak seen yoxo ak seen doole ak seen xam-xam ci ni réew mi di indi en tout cas ñu mel ni ñun loolu la ñuy jéem xam ci politique réew mi dox jëm kanam kese moo leen ñor ñu fexe ba dugal leen ci yëf yi dañuy uti xaalis. Ah, man de sama bopp rek laa a nattee sama bopp bu ma ko xoolee munu ma dugal ci politique parce que bu fekkoon ne alal kese la wala ak pal kese la mënoon naa ko am ci nu mu ma amul proposition bu ma amul bu jugee ci nguur gi wala mu jugee ci yenn kuréelu gën a mag ci àdduna bi pour que ma ñëw liggéeyal leen mais nanguwuma ko woon parce que simplement dama jàpp ne ba may jug di yëngatu lii taxuma jóg mais jóg nag xàll sa yoon yoon woo xam ne utee na ak ni politiciens yi doon doxalee di indi xam-xam ci espace politique politique bi di waxal nit ñi di leen ràññeel di leen gën a ba ñu xam li ñuy attee lu tax lan mooy njariñam ak fan la mën a jëmale réew mi lool noonu moom pour man lu baax kese la ci réew fexe ba yow suñu doxalin ci politique nekk doxalin bu bees parce que Sénégal moo ko soxla lu français wax renouveler dañu war a renouveler doxalinu politique te loolu nag jàpp naa ne ñu ko gën a mën moo ñu jógee ci société civile bi waaye rek na fekk ne ñu indi doxalin bu bees parce que gis nga boo ñëwee ci jàmmi gox yi di nga gis ne doxalin bu bees la duñ def na politiciens yi daan def dañuy dem ci askan bi xool jafe yi mu soxla ànd ceeg ñoom dof façon politique boobu nag doon lu bees xëy na nit ñi ci njëlbeen ñi duñ ko xam mais bu ñu nee ba ci biir ñëpp dinañ gis ne mooy njëriñu réew mi loolu nag lu baax la ci réew yegg si euh, nañu nag ci xët bi nga xamee ne moom la ñu euh, jagleel rek xibaar yu soxal nag wàllum euh, koor gi réseau des femmes leaders entrepreneurs sénégalo gambienne ñoom nag amal nañu rek seen ñaareel bi conférence bi nga xamee ne ña ngi koy amal ci jamonoy koor gi ndaje mu ni mel nag nekkoon na itam nag ab buntu ngir nag daal di waxtaane réseau beeg ay jéegoom ak it li mu dëgmal ci jotaay boo xamee ne la ñu fa doon waxtaane mooy jàmmoo ci diggante dëkkandoor ak morom mi noa bi ay jigéen yi bokk ci des femmes entrepreneurs ak leaders sénégalo-gambiennes ñoo amoon conférence religieuse ci weekend bi fii ci Kaolack ñaareel édition bi ñu doon waxtaan ci wàllu jàmm ak jàppale ci diggante dëkkandoo Adja Mouskorom Mbaye mooy présidente bu réseau booba. ndaje mi tey conférence la boo xam ne jigéenu réseau des femmes entrepreneurs leaders sénégalo-gambiennes ñoo daje woon waaw fas yéene def conférence oote jàmm jàmm ci dëkkandoor jàmm ci nekkin ndax jàmm ci lu ne pour sunu moom sax ñoowaat na di wax taxawaay réseau bi ak liggéey yoo xam ne def nañ ko ngir autonomiser jigéen ñi. Adja Mouskoro Mbaye. waaye tamit fàttali tuuti nekk réalisation yi nga xam ne def nañ ko ci réseau bi muy lu ëpp ñetti téeméeri jigéen yoo xam ne defal nañ leen formation ci deux mille vingt bi te itam di wax ne lu jëm ci wàllu DER bi DER accompagné nañu ñu ngi ci quatre vingt sept millions yoo xam ne tey DER accompagné na ko rien que réseau IMSEC avril. deux mille vingt et ba avril deux mille def dugal na plus de trois cent millions ci réseau bi ci di leen ci seen accompagnement dans les régions aussi parce que du fii rek la. ñu fàttale ko jigéen yi nekk ci réseau des femmes entrepreneurs ak leaders sénégalo-gambiennes jot nañ def benn tirage pour xam kan moo war a dem ci tour réseau bi ci pelerinage à la Mecque. jaajëf euh, noi biyaay euh, dañuy euh, des ba tey nag ca googule mbir ci wàllum biya màkk boobee nag dikkaat na ci rek moom njiital réseau ba lu ko jiitu itam mu daal di jotal bataaxal boole koog itam di sant gërëm taxawaayu réseau bi nga xamee ne yaatu na ba yegg ci lool Adja Moussoukoro Mbaye mi ngi ci micro noi biyaay. réseau bi dafa daj tey les quatorze régions partout au Sénégal ñëw nañ wax dëgg yàlla Kolda Sédhiou Vélingara Tamba Ziguinchor waa Saint-Louis réalisation yi ñu fi def yëpp moo ñu ko defal ndax tey moo ñu indil DER moo ñu indil 3 moo ñu indil tey li ma doon jàmbat salte bi nekkoon ci kaw Kaolack moo ñu indil ICG tey jii fa tabaarakalla li may wax toujours ma ne population bi ñoo des ci yar seen bopp xam ne sagar bi wala mbuus mi wala kayit gii duma ko sàmmi fii dama koy dugal ci poubelle bi poubelle yaa ngi partout nañ leen jàng satal suñu bopp satal suñu alhamdulilah imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé may nañu billet billet bi nag amul woon devise waaye billet màkka la boo xam ne ñun li ñu dajale ñoo koy def devise di accompagner ko kiy dem kaddu yi Adja Moussou Koro Mbaye ci waxtu woowu itam nag jàpp leen ne euh, plateforme des Linguères de euh, Kaolack ñoom itamit nag amal nañu rek seen ak conférence religieuse ba ñuy amal euh, ci weeru koor bu ne lu ni mel nag ñi ngi ko doon def rek cey ay bés yi ñu génn mu tollook ren ji nag yemboo ko juróomeel bi yoon ñu koy amal taxawaayu plateforme bi solos conférence bi moom honorable député Adji Mbergane Kanouté di kàddu na ci ci micro bi ay ndaje bi dañ koy def année am cachet bu am solo ak thème bu am solo may fàttali na plateforme les Linguère de Kaolack dafa nekk plateforme boo xam ne am na ci gox goxaat kaw Kaolack ay plateforme décentralisée yu nekk tamit plateforme Linguère quartier bu ci nekk objectif yi nag multiple na objectif bu njëkk bi dafa nekk ci li ñuy woowee remobilisation mooy jigéen di dajee mu nekk façon animation boo xam ne dañ ñëpp ay échéance électorale daf ñuy permettre gën a mën am taxawaay bi ñuy jox ndam li ndam xam ne dañ koy jox président de la république comme une majorité confortable à l'assemblée bi mooy dañuy dajee tamit pour def li nga xam ne mooy bu wéy ci wàllu autonomisation de la femme ndax kat retombée conférence religieuse dafay dem bokk ci autonomisation de la femme mooy financement jigéen ñi nga xam ne tey ñoo tëgg conférence moom la jël di ci liggéey di gën a mën a asseoir seen autonomisation pour mën a participer développement mais également y a un autre objectif mooy leadership féminin muy loo xam ne dañ siy liggéey bu

Kanouté yegg si nañu nag ci euh, reportage yu euh, bés bi ay bés rek des ngir ñu daal di àgg nag ci li nga xamee ni moo di euh, kori gi te xam ngeen ne itam ku wax feet rekk ala foog itam nga daal di wax wàllum ñawlu gi ba tax na nag moom suñu ndaw doxantu na rek daal di xooli ji ñi nga xamee ne ñoo di tailleur yi waaye nag lañu ñu ko xamal jamono ji mooy ne commande yi bareegul ci wetu mag ñi ndaxte jamono ji way jur yi xale yi ak njaboot gu sew gi la ñu gën a bàyyi xel ndax am déet Alioune Badara Diop. lu néew benn ci ay bés moo ñu dem ci feetu korite gi waxtu bi nag tailleur yi ñoom dañuy am liggéey bu mucc ayib wante liggéey bu métti lool te jamono ji ñu toll nii réew mi métti na lool ba tax na yenn ci ay waajur ñoom dañuy daw ngir jéem a bégal seeni njaboot rawatina xale yi ñu ngi fii nag ci Medina Baye nekk ci benn palaasu tailleur buy wéy ci tuuru Abdou Karim. liggéey bi moom teneen na rek la ñuy wax uti naa yu fi doon jaar xam nga Sénégal moom instant bi moom ñu si bëri lu ñu lekk lañ tal ak lu ñu naan moo tax mais nag jour yi mujj yi moom xam naa affaire yaa ngi tene mais yi mujj yi mi ñëw bi moom day métti suñu parce que fan yi yëpp ñuy salaatu la ñuy wàcc mais nag ñi ngi sant suñu borom bi nag Sénégal moom lépp métti instant bi mais événement bi moom uti naa yu fi daan jaar naam sax jafe-jafe yi métti na lool ci suñu réew rawatina waxtu bu ñu tollu di waajal korite gi léegi wante jàngat bi moom daf ñuy wan ni ndaw ñi la ñu gën a jox gëdd ci li nga xam mooy feetu korite gi ba soxna dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla client yaa ngi ñëw ndànk ndànk naam jamono bi xaw na doy mais nag euh, nit ñi mënuñoo ñàkk sol surtout xale yi wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw sant yàlla bu baax teelu te ñëw moom ndaxte fi koor gi commencé daf fekk weer bi commencé doo ko mën a jot avance doo ko mën a préparer corté yi quoi. day indi jafe xaw na indi jafe-jafe nag ndaxte gars yi yéex na ñoo ñëw mais nag fekk na ñun pare nañ bu dee ñëw góor yi ñëw nañ ay baat teg bu dee grand boobu yi ñëw nañ ay grand boobu teg xam ne boo jëndee piste rek da nga ñëw rek fekk ñëw. feetu korité ren gi nag teyri ñoom gisaguñ ci seen bopp ndaxte bu ñu defee li nga xam ni mooy xayma bi mën nañu wax ni askan bi tabaski lañ gën a jox baat que ni korite gi wante teewul ne ñu ngi sant yàlla bu baax lii de mooy kàddu ki nga xam ni mooy Baye Dame. waaw tabaski moom sinon mooy gën a neex quoi. mais nag par Korité Korité moom wax dëgg yàlla moom kii noonu mais tabaski moom ci li ñu gën a gis suñu bopp ñun téyeer mais nag sant yàlla moom sant yàlla parce que lu bon bon ñu ngi ci fortaatu nànk-nànk. feetu Korité nag doon na feet boo xam ni saa ñu wooree ba koor jeex moo koy firndeel ñu ciy ràññee nag ay colko yu rafet yu am solo rawatina ci xale yi wante mag ñi tamit kenn demu ñu des jamono ji ñu toll nag tailleur yi ñoom am nañ ayib lenn kese de moo leen jaaxal mooy ñaw yi nga xam ni ci fan yi mujj yi ñu koy indi te mu leen jural ay gàllankoor wante bu dul loolu ñu ngi dolli sant yàlla bu baax ci bi leen gënal di feetu korité jaajëf Alioune Badara Diop ñu daal di tàbbi nag ci li nga xamee ne moo di ay yóbbalu koor gi tey jii nag dañuy sëgg rek ci saar bi nga xamee ne moom la ñuy dàkkantale saarub mbugal li mu tënk ak la mu jàngale lépp moom oustaz Mouhamed Sow di ca waxtaan ak soxna Ndeye Fatou mooy al azab mooy saaru mbugal lenn ci saxaaba ñu ko tuddee noonee day fa mu ne maa ngi waat ci yàlla bàyyiwul kenn ndare mu laal la maanaam wul kenn ñun saxaaba yi liñ daan ci moom mooy rubu dong lañ daan jàng ci moom pour mën koo dégg ak saar bi num tàngee lool mooy saar bi nga xam ne boo koy firi soo moytul rek léegi ñu tuumal la jihadiste parce que amu ci benn maslaa bu ci am fay wone ne jullit dafa war a deñ seet wecc ci bokkaalekat yi ak képp koo xam ne aussi yéeféer la yi châteaux loolu ñu ko jëlee ci verbe xash-xasha lu muy firi mooy wér ndax saar bi dafay wéral dafay setal ci nafiq yuqaalu qad xash-xasha al maridu ida afaaqa wa bara suñ ne feebaroon dee tane na xash-xasha na mooy xippi na ximmaliku na te commencé tane am na yeneen saar yuñ tuddee al muqashqishaatu mat na ñeenti saar baraa ci la bokk kaafiruun ci la bokk qul wallaahu ci la bokk ak falaq ak naas mooy saar yi nga xam ne ñooy setal nikk ki ci nafiq al munaqiratu mooy saar bi nga xam ne mooy luñutu luñutukat bi saar bi nga xam ne mooy luñutu ndaxte lépp lu nit ki nekkee rek saar bi daf koy luñutu wax ko génne ko ci biti rawatina ñi nga xam ne seen jikko yi baaxut mbaa ñu yore ay jikko naafeq xabaar yi bitim réew yegg si euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi bitim réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf euh, Ngoné Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy doore réew bu yi wax ci benn attaque terroriste boo xam ni jot na fa am ginnaaw ci loolu mën nañu wax ne bii mooy ñetteelu yoon attaque boobu la ñu ngi ko nemmeeku ci benn camp militaire bu nekk ci digg réew mi te mbir moomu la mu ngi am ci dimanche bi ñu weesu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bokk ci région bu Mopti te attaque boobu lay def na luy tolloog juróom xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan te ñu doon ay yoo xam ne ne ci réew bu Mali la ñu bokk. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Nigéria wax ci benn explosion boo xam ni moo fa jot a am ci benn raffinerie explosion boobu mu ngi am ci delta du Niger bokk fi nga xam ne mooy sud bu réew bu Nigéria ci fàttali explosion boobu mu ngi bokk ci wàllum pétrole ak li ni mel maanaam wàllu carburant te def nañ xayma bi luy tolloog téeméer ak fukki doomu aadama jot nañ si ñàkk seen bakkan ci bile explosion foofu ca diwaan bu Nigéria. xabaar yi bitim réew. demat ba réew bu Mali wax ci benn groupe jihadiste boo xam ne jot nañ ñu annoncé que ni dañoo jàpp benn mercenaire boo xam ne russe la groupe bi nga xam ne da doon jàppal tànk li nga xam ne mooy l' état doon principal alliance bu jihadis yi nekk fële ci Sahel bi am lëkkaloo ak li nga xam ne mooy Al-Qaïda jot benn jàpp koo xam ne ci groupe Wagner bi la bokk doon ab bu Mali. xabaar yi bitim réew. dem ba Asie Pacifique wax ci li nga xam ne mooy Covid 19 di mbas mi foofu ci cànkaay nag doomu aadama yu bëri bëri ñu ngi ñàkk seen bakkan ah, ci mbas mi ni mekk donte sax amoon na benn confinement bu fa amoon te ñu doon ko ci weeru avril bi ñu weesu wante mën nañu wax ne xayma bi nga xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan toll na ci ñoo xam ne covid 19 moo leen rey ba fi nga xam ne mooy capitale bi Pékin moom la jël ay matukaay yu mat sëkk ngir ko xeex li nga xam ni mooy jàngoro bi di covid foofu ci seen réew xabaar xibaar bitim réew ak élection présidentielle yi nga xam ne moo amoon ca réewu France kii di Emmanuel Macron tabaar nañ ko mu doonaat njiitu réew bu France ginnaaw ci loolu Union africaine te ki ko jiite di président Macky jot nañu envoyé message de félicitation baax a baax ci bi leen ndam Emmanuel Macron tabaat nañ mu doonaat njiitu bitim réew. jërëjëf Soxna Ngoné foofu la ñu yem ci li nga xam ni mooy xibaar bitim réew yi kenn dala jàmm. bàkk euh, bàngook euh, tàggat yaram gi euh, Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak football demi finale aller Ligue des champions Real Madrid Ligue des champions africaine carré bu mujj bi nag jëm ci demi finale yi nag des na ko amal juróom-benn fan jàpp juróom-ñaari fan ci match aller bi nag bu dee match retour bi nag fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent Al Ahli mooy laaleeg Casablanca Sénégal ginnaaw bi ñu ngi nekk ci wàccaayu defaraat équipe nationale ci ñi am lu yées ñaar fukki at kii di seen entraîneur di Malick Daaf moom nag daal dinay convoqué ci ñeenteelu stage boo xamante régime internat ñaar fukki fan juróom ñeent ci weeru avril foofu ca Toubab Dialaw Coupe d'Afrique des Nations rugby seven équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne ci wërngël gu njëkk la ko éliminé ci Coupe d'Afrique bi ni mel mi ngi doon am ca camp yéeseem ngir dem ci coupe du monde bay am ci Afrique du Sud ci weeru satumbar gi bi nga xamante ne moom mooy fi champion bu Afrique mu jaar ci barrage ngir dem ci mondial ca Afrique du Sud fukk lañu ay internationaux sénégalais nag yoo xamante ne saison bi bu jeexee nag seen contrat daal di jeex ci seen i club muy Salif Sané fanweeri at ak benn moom nag Schalke 04 foo mu yéeg nag mu xool ndax dafay des waa wala déet foofu ca Allemagne keneen ki Abdoulaye Bah dina des Portugal wala dafay dem Turquie contrat bi ren jii lay jeex Saliou Ciss moom contrat ma jeex na yem fi nga xamante ni naas yi dafa wàcce ci national Lamine Gassama fanweeri at ak ñaar moom it foofu ca Sabadell ca Espagne Assane Diouf ñaar fukki at ak ñeent foofu ca Saint-Étienne Cheikhou Kouyaté moom nag dafay dem Turquie wala dafay desaat fi nga xamante ni moom mooy ca Angleterre des na ko xam ci bés yi di ñëw Opanguet Ndiaye mën naa jóge fi nga xamante ne moom mooy Mercenaires sax dossier bi yëngal nañ ko ngir mu jóge fa Mame Birame Diouf jeexal na contrat ak Ataay Sport dina fa delluwaat waa walam déet it Ibrahima Balde moom it dafay delluwaat Espagne waaw wala déet ak kii di Cheikh Diop mbokk yi waxtu wi jot nañu sob ak yéen ci seen rubrique corps ak tàggat yaram. seen rubrique tàggat yaram ak corps. képp koo xam ne digal nañ ko mu def activité physique na jéem au moins bu dogee ba pare mu def une activité minimum de 15 à 30 minutes activité physique nag ñu dara marche bu rapide sax activité physique la mun na jógee ci marche mun na nekk vélo mun na def course à pied bu mu nekk loo xam ne intense na te supporté wu ko am na ñoo xam ni marche moom doyu leen comme sport comme activité physique am na ñoo xam ne il faut ñu daw yi am ñoo xam ne il faut ñu football yi l'essentiel mooy nit ñi ñu am information bi may waaj a wax une alimentation riche et mooy tax nga am wér gu yaram da dem def pour am wér yaram ñëw lekk loo xam ni c'est nocif maanaam loo xam ni dafa riche torop en sucre wala riche torop en graisse li nga defoon ci activité physique yépp ñëw nga yàq ko ci quelques minutes lekk lu bëri graisse wala lu ëpp lu niin torop wala lu sucré torop baaxul ci wér yaram loolu bu fekkee da def activité physique nga xam ne loolu lu baax la médecin ñoo koy digle nga ñëwaat yàq ko parce que da lekk lu neex loolu a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 ci suuf laaj Pape Seck <laughs> madame Guèye Sani Ndiaye Ibrahima Guèye <laughs> foo waxoon ko fi dikk naa ko wax ne nekk fi <laughs> xam naa fay nelaw nag loolu moom waxuma ko màkk ci yokk madame Guèye ci la xëcc bunt bi rek euh, nar dugg Pape Seck ah ah ah maa fal garde corps kat bu def lu xëpp dàq xaj na ci kat baax rek ba mu yeew oh madame Guèye ko ba ma comme amute laf ca la ne lasar ca karo ya madame Guèye ca la daal di ubbi bunt bi fekk alaajeem diggante banque DG euh, euh, yàq nga sama nelaw yi di madame Guèye Ibrahima yow daal tal ngaa nelaw yow korité gaa ngi jege fu ne wër naa la fa xoolal ñaari mbuus yaa ngi marché laa jógee xoolal ñaari jéetineer laa ut bii man bi yow dàll yi pour aji ñaari tis yële pour sa goro ya ça fait quatre cent dix bopp bi li nga fàtte mooy nga boole sa juróom-ñaari mètre percal yow doggali ma nga ndar o oh, sama tension bàyyi monté madame monté la ci kaw ma ñëw Haj Ibrahim Gaye ci la ko fa romb madame Gaye ah foo jëm ah yaa ngi dem waa baax na ba nii ku ko mën a boole koor ñii di ma sonal ak suukaru koor madame ñëw jët ma boru kii daa bëgg ma dégg <laughs> o DG yoon wi yëpp da koo waxtu moo nga ca jumaa ja moo nga ñaan baatam ca kaw lex ya tooy xepp <laughs> yaa rabbi yaa allah yaa fataax sept cent mille francs pour ma pëj sama aajo <laughs> allah maa ngi kitaabu ne su ma ko amoon tey sama koor gi dinaa ko matal o DG li muy lépp moo ngi wax ci kaw te ko daa noppi rek ñu daal di kabar mu nekk ci gannaaw imaam mu pare dem du ko nuyu ji o oh, imaam cheikh gis na waayam jile tax mu jàpp ci loxoom jëm ak moom këram DG moo ngi muñ rek nde soppeem ba la àndal xaaj Ibrahim Gueye sunu borom nangu na ñaan ne benn birik la ko imaam boqal xaaj Ibrahim génn di way jubal rajo ba nde càkkutee fa mat na ci la ko dugal ca poos di waaxu rek lu mu seen ci mbedd mi rek joxoñ ko naa la jënd si naa la jënd si o oh, DG am nangu na sëriñam baax na ay jafe-jafeem saafarawu na li des rek mooy mu matal kooram de dëkkoo nasaroon DG daa yegg rajo ba di ree dajalewaat gaayam yi dig madam maa ngi dikk ci kanam o xaaj Ibrahim Gaye bu waa rajo bi moom la bëgg njëkk a dab tax mu dajale leen dugal loxoom ca poosam ndeke poos bi daa fëq ca la àddunaam tukki <laughs> yaa rabbi yaa rabbi maa la waxoon ma mayeekaat cent mille ma la nga may ma nangu ko maa waxoon waxit oo li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, halaan bikum ginnaaw xay jàmmu mel na ni juboo xam na ci diggante jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ak waa kër doktoor yi nga xam ne fañ doon geraw fan yépp si du quotidien moo ñu ko xamal yaw seetal démb daal fa ñoo dajaloo xamal waxtaan ci seen biir ba mujj nañoo xaatim déggoo ci fukki poñ ak juróom-ñaar critique yéene kaay mel ni ku naan alhamdulilahi ndax fukki weer ak benn waa kër doktoor ñu ngi négocier ak a geraw waaye démb li tax juboo am mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram gi fa ñoo mujj deltu ginnaaw nangu càkkateefu gaay Le Soleil yéene kaay na fukki poñ ak juróom-ñaar yooyu dox seen diggante kon fañ nar a jëm mooy lan geraw ci wàllu kër docteur fay jeex tàkk te gouvernement bi noppi na ngir waxtaan ak ñoom bés bi yéene kaay na ko waa ànd gësëm ñoo ànd déggoo ak nguurug Sénégal ndax Diouf Sarr fexe na ba bomb bi bañ a kalaate te mooy geraw bi continué waat source a yéene kaay mel ni ku naan yi sage-femme yeeg waa kër docteur du ba noppi xam nga léegi lan moo leen di xaar mois ngeen xool jëwriñ ñu dénk wàllu wér yaram gi Diouf Sarr ca turbine yéen ma ngay xoo syndicat waa kër docteur ne fi mu toll moom geraw bi moom dakkal leen ko comme jubóo nañ lu jëm nag ci mbiru assu soxna ma leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ànd ak dal te bàyyi yoon def liggéeyam bés bi yéen mel ni kuy wax ak Diouf Sarr na ko boo lijjantee loolu ba pare am na leneen lu xaar jàngoro ji ñuy wax si buru hée mi ngi bëgg a jeexal sénégalais yi fa gën a bëri a Sénégal buñ ci waxu du baax de nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi boo moytu seen coalition ya fa nara tas fa ñoo nar rayante ndax ku nekk fa bëgg nekk député ba tax investitur yi fa nara a ci ñaari coalition yi ni mel le mandat yi ne kaay moo ñu ko xamal l'observateur na ko pourtant man nag faa gis ne Yewwi Askan Wi ñoom ñoo gën nekk ci jafe-jafe maanaam boo moytu ñoom ñoo nara ta tas ñoom foofa ñi bëgg nekk député fa ñoo bëri coalition ba gën a yaatu ku nekk naan man la moo tax seen tànneefu a nekkal député yomb de donte génne nañ ak fem bu bees waaye ba motul kàtt ga jaxasoo fa de te su fekkee dañoo bëgg am ndam def cohabitation ak Macky ca assemblée nationale seen bëgg-bëgg personnel yi ak ambition yi fañ ko war a yemale lu ko mooy du baax de li baax nag ci Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar mooy ay farandoram ya nekk Ndakaaru xam nga ñaata lañ jox Macky Sall ci parrainage bi lu ëpp deux cent soixante aay ah fa ñoo njëkkoon a jox Macky Macky xeeb ko waaye bi yoon de li ñu ko jox a a na yoonu bàyyi politique moo waxal boppam de ci yéen a ne man daal faa foog ne faay bàyyi politique daal te wote député yi fas yéene wu ma cee bokk ba naan maa ngi yóbbu liste wal fajiri yéene kaay jox kàddu Farba Senghor mu Ablaye Wade ma woon ma ngay xamle ne Karim Wade juboo bi nga xam ne Macky Sall mi ngi ko bëgg a juboo ak baayam Ablaye Wade loolu neexut Karim Wade de ah yow Karim coono bi muy dund yëpp Macky Sall moo ko xotee jàpp tëj kaso génnee réew mi xëy rek naan fa bëgg a juboo ak baayam Karim ne na man d'accord ma ci de ba tey Farba Senghor ne ku jégi lu dara jarut Macky Sall ci wote député yi maanaam fa bokk yaakaar yéene waaye yomb ndax Macky Sall moom xam nga lan la def ngàndaayam li ñuy wax transhumance maire kujje gi responsable kujje gi ñoom lay neexal di leen ànd ci wetam léegi mu jeexal leen de l'évidence yéene kaay di ñu xamal ne RP parti Serigne Mamoun Niass ba ña ngay tëkku na fa ñuy génn bàyyi Benno Bokk Yaakaar ca département bu Foundiougne coordonnateur ba Issa Ba ne bureau politique bu RP fa ñoo xamal ndaje jël dogal nag dakkandil seeni activité ca Benno Bokk Yaakaar wote député yi di ñëw fas yéene wu ñoo ànd ak Benno ndax ñaawlu doxalinu gaañi ndax a joxul seen gëdd a koy fajal boppam génn bàyyi benn bokk yaakaar la jeexagut nag mooy jafe-jafe ya nekk ca poste source a na liggéeykat ya faa leen jàqal am na ñaari xibaar yu bon ca ñoom yu génn yow seetal seen avance su tabaski yi ak yeneen xew-xew diine yi fi mu toll dakkal nañ ko dootuñ ko jotati ba ci seen avance su salaire yi les si ko yéene kaay di ñu xamal na Macky Sall njiiti réew mi xam nga fa demoon Makka umra ji waaye ba muy wër Kaaba ga fa la ko benn malien dogaale na ko Macky embargo bi ngeen def suñu réew ma métti na trop ngir yàlla xolaat leen li ngeen di def la mu def moom bàyyi caam ahlan mooy organiser ca Medina Baye Kaolack lépp ngir rafetlu taxawaay ak liggéeyu imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ginnaaw tournée yi nga xam ne mi koy def ci réew yi wër Sénégal di tasaare diine ji l'évidence yéen a kaay moo ñu ko xamal tàggat yaram demi-finale Ligue des champions aller tey bu 19 jotee City mooy bal ak Real stade yéen a ne nar naa saf nag équipe bu mag a mag bi Real tey moom xaw naa koo jàqal faay ragal ñu mbuqi ñu de bu ñu amee match nii rek da baax na faay ragal naa du baax tey de suba la le wéré journal moom di ñu xamal yëfu saay-saay photo ku ko wala ay audio ngay wax lu garaaw ñu tasaare ko ci internet bi su ko defee yow nga yàqu yaxet mi xaw a géy dootoo jarati dara ci dëkk bi li ni mel kañ lay dakk ci réew mi xam na ñoo xam ne sax bës lañ ci jublu nga am bës bu mu du nettali kenn nag mooy benn mu réewu Nigéria fañ koo jàpp muy jaay yàpp mbaam léeg ko yéen a kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom libération mooy mbir mu garaaw yow seetal benn xale bu jigéen bu xam juróom-ñetti at fañ koo jàpp ray ko ci ab bu yeggut ca diiwaanu Bargny allah yéen a foog nag mooy fañ koo wuyal tëddee ko ba pare daal di koy rey ka ñu bëggoon a rey mu rëcc moom it beneen xale la waaye bii xale bu góor la xam juróom-ñetti at benn waaye ko tër bëggoon koo rendi xale ba rëcc turbine yéen a kaay ne yëf yaa nga amee ca quartier Daaru Salaam 1 cité du rail te mooy moom fa xëy di laaj sénégalais yi ne waa lan moo tax suñ ministre yi ñoom duñ mës a démissionné tekki seen domba tànk ginnaaw bu leen tuumalee ak tooxi doona guñ def wala ñu jàpp leen ci ak tappale ci gàttal luñ mën a def lu mu garaaw garaaw garaaw ministre u yi doo ci dégg kenn ku tekki sa ndombal tànk te moonte àdduna bi réew yu bëri xam ministre suñ ko tuumaalee wala mu def lu na weng fa war a xam ngor ak jom ba tekki ndombal tànkam léegi nag suñ ministre lu tax duñ ko def mooy ba ñuy ngooy ci seen poste ya nag président moo leen cay jàppale waa ma ne yàlla xam na na tontu bi yéen ñi koy laaj sax xam ngeen ko fii nga nekk ministre mooy na fa ngay xam xalal ju du xaaj ju jeex ndax fa ngay gis koo xam ne ba mu nekkutee ministre xamu dara nekk ministre ay milliards yi milliards yi milliards xoto yu du xaaj ju jeex seen doom yi di pasar pasaree xalalu askan wi moo tax kuñ fal ministre nga kontaan say mbokk kontaan sa salaire rek liggéeyal askan wi buñ la tuumaalee loo defut wallaay fa sa ndoomu tànk léegi suñ bañ a ndomba tànk ki leen faloon di président léegi lu tax moom du leen dàq. Euh, li ci euh, yéen kaay yi Choukran El Hadji euh, Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi waaye nag xibaar yi day wéy jamono bu ne ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal nañu leen yéen ñi fare woon ci wàllum déglu gi jaajëfal ko du sekk kenn mi ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci jàppandal gi wéy leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak muccule biir ak biti tawféex ak taysir jaa ngeen jëfati Ndiaye. Le journal Ngoné Ndiaye